wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat ci sëriñ Muntaxa xalifa général des mourides ci lañ jóge léegi ñu ànd ak sëñ Mamoun ñëw fii di siyaare sa barab bi nga xam ne nii mooy barabu fajukaay bi nga xam ne moo njëkk noppi ci yent yi nga xam ne moom la tubaa ca kanam di liggéey nee na di leen seereel seen jëf ci sëriñ Touba nee na loolu tax mu ñëw fii nee na dafa am taalibi sëriñ Mamoun bu ñu wax sëñ Moussa Niang ndax indi na fi conteneur boo xam ne li fi nekk ci ay bagage médical nee na buñ ko xaymaa ci ay koppar war na mën ñaari téeméeri million ak juróom-ñaar fukk ak benn nee na loolu nag ku ko jëfal sëriñ Touba nee na murit muritu sëriñ Touba yëpp war nañ koo xam ñu ngi lay ciy sant bu baax di la ci gërëm bu baax seereel nañ ko sëñ Muntaxa léegi kon sëñ Mamoun bu fekkee ne Moussa dafa bokk ci sa njaboot jëf-jëf ju toll nii ànd ak ay bokkam yëpp bu ñu teewee eh, indi ko sëñ Touba ñi nga ñun ñi nga xam ne ñoo lañ ko teg suñu loxo war nañ ko seere àddina sépp ba ñëpp yëg na jëf ngeen ko fi ñu sant leen ba ñëpp yëg na sant sant nañ leen ñu bàyyi leen ak yàlla mi leen bind mu fay leen sëriñ Abibu nee na loolu la ci doon seere nee na ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm tey ñaan say rakk yu mel ne yow say kem yu mel ne yow nga xam ne dangaa bokk ak ñoom Cheikhul Khadim nee na ñoom ñëpp nañoo xam ne liggéey bi seen liggéey la nii nga jàppee ci liggéey bi ñoo ñooñu ñu soññ ñoom it ñu soññu njaboot gi ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp ci liggéey bi liggéey bi sëñ Touba rek ko moom nee kenn moomu ko sëñ abi bu nee na du génn kër kër sëñ Touba rek la képp koo xam ne la nga yor sëñ Touba la ko may nee na kenn ëppalewu la ci Touba ca kanam bu fekkee ne sëñ Touba joxu ko nag wala yàquutal sa bopp nee na nga téye séef nee na soxlawuñ ko nee na daal lu sëñ Touba amul soxlawuñu ko kon sëñ Mbacke jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax sëñ Mamoun yàlla na la yàlla fay fay njaboot gi nga àndal yëpp jëf jooju jëf nee na ñoom it jëf jooju jëf ñoom Moussa ñaari téeméeri million ak juróom-ñaar fukk ak benn nee na yàlla na ko sunu borom soppi ay milliards yooyu dollar nag wala euro te ñun ñëpp ñu bokk ci nag kenn ku nekk nee na ba nga jëfal sëñ Tuubaa jëful toll nii ci kenn ku nekk ci ñun rek nee na tàmbalee ci ñooñu rek kon sant nañ leen bu baax ah, machine échographie it am na ci bagage yi bariwul ci dëkk bi de. ñaar fukki million lay jar ak juróom sëriñ bi te da ngay rang ba sonn. nee na lal yiit fukki lal la ak ñent lal bu ne day jar juróom million. lal yi courant la nee na loolu ku ko jëf. Ah, ñëpp war nañ ko yëg. ne ko jaa jëf baat bu gàtt la. waaye ku jëful doo ko dégg. tudd Serigne Mbacke Madina Cissé di coordonnateur fondation 221. tey di wax ci kàddu suñu njiit suñu président Moussa Niang nekk États-Unis nekk ci Detroit jàpp naa ne tey bis bi ak lii ñu gis ak fañ jóge ak fañ yegsi lii kum doyul dara dootu la doy damay ñëw ci sëriñ Modou Mamoune sëñ Fallou muy toog tey lu jig njaaga mooy njaaga lépp mooma ndax fondation bi nga xam ne mooy fondation 221 ki nga xam ne mooy Moussa Niang di doomu réew mi di taalibe dëkk diggante Touba ak Mbacke ba mu ci amee xalaat sos ko dafa ñëw ci sëriñ Mourou Mamoun mu sëñ lu muy toog tey muy suñ jëwriñ di jëwriñu fondation 221 mu ñaanal ñu samp ñu nag lépp lu ñu mën rek ci ak mbaaxam ak ñaanam ñi ngi sant yit yéen ñi nga xam ne yéen ay waa ca kanam ndax liggéey bi ngeen di def wax dëgg yàlla rafet na sell na yiw na lëg loo ko bañ bañ bañ xamal ne mën naa daw te nopp gudd na lii kum doyu dara dootul day mbàkke bàll te fas nañ ko ànd ak yéen gunge leen ci lépp loo xam ne soxla ngeen ko ci fondation 221 ngeen jaar ko ci sëñ Modou mu sëñ Fallou lépp luñ ci man danañ ko ci def xanaa lu ñu mënut parce que suñu président taalibe la te liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi dong ko ñor te fii la dëkk fii la jàngee fii la juddoo fii la xiyaroo balaa ngaa laax jaay laax lekk ñi ngi leen sant bu baax di leen gërëm bu baax di xam ne Moussa askanu Sénégal rek ko ñor social rek ko ñor dara ñoru ko loolul social politigul deful lenn dimbale doomu aadama yi dong moko ñor mu nekk loo xam ne lu wër la lu leer la kon nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Mbàkke ñi ngi lay ñaanal lépp luñ mësa taxaw taxaw nga ca du tey dafa yàgg ñi ngi ñi ngi ci kàddu yi ñuy sant yéen ñi ànd liggéey bi yépp di sant it sëñ Modou Mamoun ci jëf ji nga xam ne jëf nañ ko suñ Moussa ñaan moom jëf ko ànd ko waa 221 gépp fondation 221 gépp muy ay bokki taalibe bi nekk Amérique te yàlla dogal ngay seen jëwriñ tey waa wolof yi wax ne peccum li su neexee yaay ja jàpp ca wagg lii bu mënee am ginnaaw yàlla kon sa taxawaay ci la ndax ñu ko yëkkatee bu la jubuwutoon du agsi fii kon su la juboo nga soññu leen ci jox leen ci ndigal ba mu agsi fii ñuy Tuubaa ci kanam gépp amee na la ci ak cant mu mel ne cant gi ngeen fa jottali ak kàddu ya doy na sëkk doy war naa doy na sëkk it ci nun taalibe yi ab soññee waa 221 yeeg yi ko defit yaakaar naa loola war naa seeral seen xel war naa dalal seen xel seen xol war na caa sedd seen xel war na caa dal ndax jëf ju toll noonu ku ko jëf ñu yóbbu la ko ba ci Sëñ Tuubaa ñu wanal ko jébbalal la ko leewalal ko ko yaakaar naa loola moom doy na sëkk kon man ngeen ay kilifa yéen itam man ngeen ay njiit sëñ Mamoun kon ñi ngi la ciy sant di sant it sëñ Moussa Ñaan ak bokki bi yi sëñ Mbàkke mi doon wax ak bokki bi yi ñu àndal ak soxna yëpp ñu ngi leen sant ci tu mboolem Touba ci kanam gépp di leen ne jëf ji ñu jëf waa tubaa ci kanam gis nañ ko waaye nag danoo xam ne ñoom danoo xam ne ñoom ñun ñoo bokk yëf yi ay taalibe bi sëñ Touba lañ noo bokk lu mu tax a jukk nekkul ne tubaa ci kanam dafa nekk ne ñoom ñu nekk ne day lenn ñuy di di mbenn mbooloom sëñ Tuubaa mu fas yéene ànd liggéeyal sëñ Tuubaa ci dëkk bi loolu moo tax ñu jëfe ko nii jëfe ko yéene bagage yi wisin nañ ko xool nañ ko waaye wax dëgg yàlla sun xol sedd na ci guyu ni ko sëñ bi waxee kawe na njort sax ci nañ ko séentoo woon wax dëgg yàlla ñi ngi ñi ngi leen ci sant bu baax sëñ Moussa Amar mi dañ ko jotti ak can ndax moom it noonu ko sëñ bi waxee moo ci doon jokkoo ñoom di ci sonn ba ni mu accès kon loolu itam ñu ngi ko ciy sant ci Tuubaa ci kanam gépp waaye alhamdulilah bi alamina wa ma amuna illa wahidan kalahum bil bashar loolu moo ñu dal ñun ñëpp benn lañ ñu ci waaye def rek day mel ne ñëpp a ko def ndax ñëpp yéene ji ak posture bi ak itte ji jenn la muy Touba jëm ci kanam kon na sëñ mi ñu ngi lay seeral loolu di leen sant di leen ñaanal suñu doomam yàggal leen suñu kanam ba yéene ji nga xam ne am ngeen ko yàlla àggale ko. jërëjëf Serigne Touba te bu nekkee ci Touba ci kanam ba mën a wax ak fondation 221 bañ mën ñoo indil conteneur médical du suñu barke barke Serigne Touba la ak Touba ca kanam gi ñu yàlla booleel. kon ñu ngi jël lépp delloowaat ko waa Touba ci kanam te di leen sant ci confiance bi nga xam ne am nañ ko ci ñun bu ñuy liggéey loo kon nag yàlla na liggéey bi jëm ca kanam rek te ñu yàgg ànd te ànd ko ànd bu rafet ci barke Cheikhul Khadim te bokk cee daje gërëmal sant waa amin jërëjëf. li nga xam ne jot na fee ñëw tey sedd na xolub bépp murit bu nekk bitim réew ndax mboolem nun ñi nga xam ne ñooy nekk bitim réew di dem bitim réew di dugg ci hôpital yi di dugg ci barab yi di romb nit ñi ñu ci gis rek yéene nañ ko indi Touba. ca yu mel nii rek lañ doon gis kon bu ay nit jógee muy euh, fondation 221 di taalibe sëñ di taalibe sëñ Maamun dégg nga mu ñaanal leen ci seen seen tàmbali bañ indi ko fii kon noonu suñ yéene lañ àggale kon bépp murit boo xam ne ni bépp taalibe boo xam ne da nekk bitim réew soxol sedd na te nga xam ne la nga nekkoon ci xool am na lu la am na luñ la ca defal donte aggut itam ndax mboolem ku génn loo xool mu rafet Tuubaa nga ko yéene hôpital boo dugg bang ya sax boo sañ boo ko mënoon a wekki da nga koy wekki indaale rawatina nag yi ñuy faje ak nañuy nañuy faje kon bu fekkee ne yéen da ngeen a jóg indi lu mel nii indil ko Touba kon noonu ñu ngi leen ci sant di leen gërëm gannaaw bu ñu santee sëñ bi bu baax a baax nag muy sëñ Mamoun ak sëñ ak sëñ Abibu mi ak sëñ Abdoulahat ci seenu taxawaay ak mboolem ñi ñu ko seqal. sëñ Abibu dañoo sant yàlla bu baax ci lii. sëñ bi de lay sant bu baax di santaat yàlla yi bu baax a baax. ndax lii di liggéeyu sëñ Touba. ndax lii liggéey sëñ Touba la. yàlla dogal nga nekk ci kanam. yàlla def nga nekk ci kanam. wuutuñu fi ñun ñëpp. wuutu fi nag mboolem njaboot gi yëpp. te mat ko sëkk. te mat koy sëkk. te yàlla yàlla dogal te yàlla dogal ni ko sëñ Abdou Lahad waxee nii ko sëñ Abdou Lahad moom masa am xalaat ci lu mel nii moom mii amoon na ay jamono bu yàgg mu amoon xalaat bu mel nii ëpp na fanweeri at ci gannaaw ëpp na nag ba ko ba siiwaloon ko ba am ay mbokk yoo xam ne sax ba am ay mbokk yoo xam ne sax ñu nekk Espagne ñu nekkoon Espagne nekk Grèce nekk Grèce dajale woon nañ ay millions dajale woon nañ ay millions indi ko indi ko waaye bi ñu ñëwee dama leen ne waaye ba ñu ñëwee daf leen ne man kat dama doon man de dama doon wax xalaat rek waaye aw ma ci ndigal waaye nag dem ba ci borom yëf yi nañ dem ba ci borom yëf yi boobu sëriñ Saliou fi nekk rek yàlla boobu sëriñ Saliou bu ko bi mu demee moom mu jébbal ko ak yëba déglu ko déglu ko lu mu ci joxe ndigal lu mu ci joxe ndigal ñu wéyal loola ñu wéyal loolu waaw ah, waaye amu woon ndigal naa ko wéyal waaye nag amul nag ndigal ni dana ko wéyal kon nag bi ndigal li bu ñu toggee ay at bu ñu toggee ay at lu ëpp fanweeri at bu am fanweeri at ak nangam benn xalaat boobu dekkiwaat benn xalaat boobu dekkiwaat ñu koy doxal ñu koy doxal jaarale ko sëriñ Habibu mi jaarale ko sëriñ Habibu mi alaaji ak sëriñ alaaj tàkko ak sëriñ Abdou Lahad mi ak sëriñ Abdou Lahad mi ak sëñ mi nee mu ngi leen ci ndokkeel bu baax ku dégg kaddu yi ku dégg kaddu ak a sant a sant yàlla gën ci a moom ne ko saa bu ñu fi ñëwee rek ne saa yu ñu fi ñëwee rek dañ jëbbal si dara dañuy bëgg rek di jëbbal si liggéey bu àgg liggéey bu àgg wala matériel bu ñëw ak matériel bu ñëw waaye duñu fi ñëw di dox leneen loolu waaye duñu fi ñëw mukk di andi yeneen wax kon loolu mooy liggéeyal sëñ bi ñu ngi ci sant bi ñu ngi ci tàmbali bi ñu ngi ci digg bi ndax du àgg moom ndax mukk du àgg day jëm kanam di àgg rek ba ngeen ko ba ne Tuubaa ca kanam bañ nañ ba wax ni Tuubaa ca kanam kon nag dañuy dem ca kanam rek kon nag dañuy dem ca kanam rek ñu leen sant bu baax a sëñ Moussa mii ngeen ñaanal ko moom ni nga ko ñaanal bu baax xare la waaye ku bëgg lu baax la ndax it moom it ñayu xare la ku bëgg lu baax waaw te ñaanal waajuram bu tedd te ñaanal waajuram bu bële xam ngeen motali seenu cant moo tax ñu ànd ak ñoom ñu ànd ak ñëw ñoo sa ñoom ñëpp ñu ñëw ci jëf ji waaw ñu bëgg koo seere ñu bëgg ko seede xam ne ñu ngi feddli seenu taalibe ñu feddli seen taalibe feddli seenu njëbbal seen njëbbal xam ne lii ak cant la xam ne lii ak cant la te di xam ne te xam ne engagement bi ci Moussa ak fondation bi engagement bi nga xam ne sëñ Moussa jël na ak fondation bi 21 221 lii ab tàmbali la ci rek lii ab tàmbali la duñ taxaw fi insha allah duñ taxaw mukk insha lu ngeen nekk rek ni ko sëñ loo rek insha allah ni Mbacke waxee ni ko Mbacke waxee ña nga ca ña nga ca waa fondation baa nga ca waa fondation baa nga ca di ko ak yéen di ko ak yéen di ci déglu di ci déglu fu ngeen jàpp ne mën nañ faa féete foo leen jàpp ne mën nañ la fa féete rek nañ ko yëg ñu nañ ko yëg danañ ci def lu ñu mën ak lu ñu mënul nañ ci jéem a def lu ñu mën ak lu ñu mënul waaw ñu sant ñi teew ñëpp nag ñu sant nag mboolam ñi fi teew waaw ñu jógee Mbacke. ñu jógee Mbacke. ànd ak soxna si nga xam ne mooy maamu Moussa ak nga xam ne moom mooy maamu Moussa. ak waa comité Touba ca kanam bépp. ak comité Touba ca kanam bi yëpp. ak waa bi yëpp. te bu ñu tuddee sëñ Habibou rek. te bu ñu tuddee sëñ Habibou mi rek. yóbbaale na ñëpp. yóbbaale na ñëpp. kon mu ngi tudd sëñ Abdou Lahad sëñ Moustapha ak sëñ Moustapha ak sëñ Seck ak sëñ Seck ak yéen ñëpp rek ak yéen ñëpp rek bu ñu tuddee sëñ Habib rek kon bu ñu tuddee sëñ Habib rek mu yóbbaale ñëpp mel ni yóbbaal na ñëpp sëñ Habib rek man matuma matuma seede ci moom sëñ Habib nag sëñ mi nee na matuma seede ci moom ndax suñu diggante ni mu demee ndax ñoom ñaar seen diggante ni waaye nag wa ma shahidna illa bima alimna waaye loolu lan suñu borom wax waaw seedewu loolu lu ñu xam seedewu loolu lu ñu xam ngeen mën koo gis ngeen mën koo gis mën ko làmb daj ko mën ko làmb te gis ko ndax defe naa ne Touba Touba ca kanam Touba ca kanam maanaam ndamul yoon yëpp la ndamal yoon yëpp la liggéeyal sëñ Touba la liggéeyal sëñ Touba la te it sëñ Touba nag sëñ Touba ko rek moo fi nekk liggéey rek moo moo fi gis nii ngeen di doxalee ak ni ngeen di waxee ak nii ngeen di waxee ak lii ngeen di jëfee ndax sëñ Muntaxa mi ko dégg léegi li mu wax ndax sëñ Muntaxa nii ngeen ko dégg ni mu waxee léegi xam ne làmbatuwul xam ne làmbatuwul de yàlla nag dimbali na ko tabarkalla yàlla nag dimbali ko macha allah dootu gone dootu gone du jaahil du jaahil bokk na fi mu bokk na fi mu bokk njombaxtaan lépp nag te njombaxtaan yépp nag mooy toog toogaay suñ tubaa moom toogaay toogaay loolu moom mooy mooy mbir yi moom moom nag mooy njombaxtaan liggéey ku ci leen lu neex kenn seetatoo kenn ku lu ko neex lu neex kenn ndax dégg nañu li mu seede ci yéen ndax dégg ngeen li mu seede ci mbooloo loolu ñun ñëpp la ko yóbbaale mhm. la lu taxaw moom dana taxaw lu taxaw dana taxaw. alhamdulilah rabbil alamin hmm. foofu rek foofu rek laa noonu rek laa ko jàpp. alhamdulilah alhamdulilah bu lii bu dee doxee nii mu dox. ba agsi fii. Hmm. loolu dara bettu ma ci. alhamdulilah dara bettu ma ci te am naa am naa ci yaakaar ju ju yow yemul fenn. alhamdulilah alhamdulilah mm. alhamdulilah Mbacké. alhamdulilah dégg ci ndax dégg li mu seede ci mbooloo. te loolu ñun ñëpp lu ko yóbbaaleel. kon ñun ñëpp lañ ko yóbbaaleel. te du waxantu. tey sëñ bi nag du waxantu. waaw kon nag sëriñ bi. kon sëñ bi. di lay ñaanal. ñoo ngi lay ñaanal. di lay di ko ñaanal mbooloo mépp. di ko ñaanal mbooloo bi yëpp. mooy yàlla lafal la cat. yàlla suñu borom lafal la cat. lafal ñu ko ñun ñëpp. lafal ko ñun ñëpp. yàlla guddal sa fan. yàlla guddal sa suñu fan ñun ñëpp. yàlla wéral jéggal ñu ñëpp. ba ñu làq ngërëmul sëriñ bi. ba ñu làq ngërëmul sëriñ bi yal nañ ko yàlla defal. yal nañ ko yàlla defal. wajalilaayi maskani tubaabaat misras mi abijaayi xayri ma nabaat